salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balaax te di leen balaax di ñaanal Cheikh Mamadou xaa Mbacké Bachir xalifa général des murit mu yàgg fi lool daan ak wér waaye di ko ñaanal mbooleem kilifa diine yëpp mbokki téléspectateurs yi ñu ngi fii ni ci Mbacké Xewar ci bis bi nga xam ne moom lañ jagleel Serigne Mamour jaara waaye nag ñu nekk ci kër gi nga xam ne kenn ci doom yi muy kër Serigne Mame Balla ñu dend ak ki nga xam ne moom moo di xalifaam di sëriñ Abdou Lahad Mbacke Mesere ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ànd ak mboolem taalibe yi nga xam ne fekk nañ leen ci kër gi. ñu fas yéene seq waxtaan ak ñenn ci jëwriñ yi nga xam ne dañoo nekk ci kër gi waaye it ki nga xam ne moo di sëriñ Mamor mi nga xam ne sëñ bi moom la bëgg a jox kàddoom mu wax ci turam. loolu lépp ñu ñëwaat rek ci ni nga xam ne noonu lañ taxawoo màggal gi fii nii ci kër Serigne Mame waaye it euh, ni nga xam ne taalibe noonu la ñuy ànd ak moom liggéey bi waaye it ki nga xam ne moo di Serigne Mame la moom euh, Serigne euh, Mamor Diarra mi nga xamee euh, taxawaayam ci digganteem ak Serigne Mamor Diarra loolee lépp incha allah dañu ko leeral ci biir waxtaan wi xam naa rek bala ñuy yàggal ñu jël kàddu gi jox ko kenn ci jëwriñ yi Serigne Modou mbay noo ngi leen di nuyu te di leen siyaar tàmbalee nuyu sëriñ Serigne Mountakha Mbacké mi kilifa ak murit yëpp di nuyu Serigne Abdoulahi Mbacké yàllaay buur jëwriñ si borom sam di nuyu sunu kilifa gi toog di sëriñ sëriñ di Cheikh Abdoulahat Mbacke moom sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Maam Balla moom borom saam kër gi ngeen nekk mooy kër sëriñ Abdoulahat Mbacke moom sëriñ basiiru Mbacke moom sëriñ Maam Balla moom borom saam kon yéene kër njabootu sëriñ Maam Balla mu toog fi nii ak i rakkam ak ñenn ci taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gërëm. te di leen xamal ni leenu ca xam lu tuuti la ndax fekke wuñu jamono yu sëriñ maam waaye sama way jur ca ña ko jëkk jëkk jëkk a topp la bokk sëñ maam lii taw tawféex ci moom bi mu ganee àddina wax nañ ni sëriñ bi moo sant borom saam ni ko na ko tudde maam Abibullah mu tudde ko ko mu xamal ko ne maam moomee nag jur dong la ca war lu ca war man la war bi matee jàng sëñ bi laaj ko am ñennat ñum ko booleel ci njabootam joxe leen waaye wax nañu daara jam ko joxe woon sëñ bi leen doon jàngal dafa xaw a tàng mu jëli sëñ maam ni nañ ma indil maam doomi fi doomi mag la kenn du ko fitnaal bi mu ko indee moom sëriñ bi moo ko jàngal alxuraan ba mu mokkal mokkal ko rafet mu jàngal ko xam-xam la cay kéemtaan mooy xam-xam benn téere képp la ko jàngal ci la ubbi ko e, moo xay am ci sëriñ Tuubaa loo xay ni e, mboolem njabooti borom saa mi waxu may kenn amu ko ci waaye kenn amulu ko faw ko ndax sëriñ tubaa yaral la boppam jàngal la boppam def ci yow xam-xam sama bàyyi na bi mu ko yiwee xullee la ko yabal kër jaayam fa la dëkkoon foofa la sama bàyyi ci moom fa la tàmbalee ay histoire maanaam la ko fa indi jëlee ba indi ko mesre ba tax ñuy mes wax mesre mambal la xam naa ci jóp waaye damay bañ a nett li mu am ci réer góoyin werante waaye xam naa la ko jëlee xulle ba indi ko ndax ci bi bi sëñ Mor soxna mu jëkk di bi mu wàccee Euh, sëñ Cheikh Asta Walo di nekk xalifa ci lañ ko toxalee xulli indi ko Mesre li sabab nag ku tudd maam Balla tudd Mesre ba mel ni moo ko sanc dafa def histoire yu rëy ci njàmbaar ndax ba mu yëgsee lam jëkk a fekk muy bëgg a tas Mesre mooy ñàkkum ndox boo Mesre mënta amum ndox wax nañu ma ni nettali nañu ma ni bi mu ñëwee la mu jëkk a def mooy gas lu settar ne ngir bëgg di ñëw Mbàkke di fi jël ay citerne ndox di ko yóbbu foofa ñu ko ñu di ko sotti ca citerne ba dëkk ba di ko séddoo waaye ndax nañ bi mu ñëwee Mbàkke bay jënd matériel bi mu gasloo citerne bi nañ ko gas maa ngi ñëw bi mu ñëwee Mbàkke dafa xalaat ni mesre de ma leen di defalub citerne seen xel du dal naa leen defalub teen ab citerne la gas lu indi matériel u teen la ca gën di kéemaan maga ma ko nettali mu mën naa jaar ci turam ba tey fàttewu ma ko ndax nee na ba mu ñëwee jàjj fa maam sëñ morom saam maam Mor Jaara jàjjoon te mu të ba ñu wacc ko ba mu ñëwee nee na moom la seet ni fii lay bënn teen bi ñamu woon damaa fàtte tur ka mu jëkk a woow nee na kooko dikk xool ko ni ko mënuma ko mu woolu kaneen kooko ko dikk ni ko mën naa ko waaye dañ koy suul ñu suul teen ba ba mu fees mu tàmbaliwaat jàjj ga muy borom saam jàjjeen mu të mag mi ma wax nee na la cay kéemaan gu yéem ñëpp mooy fa teen ba tëye woon ba borom saam bàyyi mu ko laatam faa yeggaat bënn na teen baa ngi fa ba tey kooku moom la jëkk a def boo ko dee la boo gisee la taxaw sabab mesre ay séréer ak i pël wër ko booba ndox yombul te teen ba di jeex mu daal leen di ñëw mu may leen suuf fu ne mu may waay nga dëkk fa nga ñëw di wëgg ci teen bi moo tax diggante ay séréer ak i pël bari la wër mesre looloo ko fa sabab ne cosaanu fa waaye xam nga fu àll bari ndox am fa sàmm dafay sawar te booba teen bi du jeex sama baay nee na lii moo sabab mbir waaye sama baay nee na sëriñ maam daanoon wax ni fii de lu fi waay amul yaa ko fi wutul ndab la sëriñ Touba di yéen Cheikh am na fi ku fi def lu ku fi def ku def la Cheikh Ibra defan da nga fi am lu kenn amul neen sëñ maam daana ko wax nekk na koo xam ne sama baay nee na ñime woon nag dëgg ñime dëgg gu toll nii nee na bu ñaar mosaan xeex ba ba ba xaañante buñ dikkee bu leen dee àtte leen naa yéen ñëpp a yem loola waaye di jaay nga jënd ko danga nga am njëgam ndax fi mu ne boo ma tooñee ma dóor la nooyam kepp su doon boo ma tooñee ma muñ kon duñu xeex sëñ maam foofu la toll woon mboolem ñi sëriñ Tuubaa yaroon ñu di mag te mu fekkal leen fi wax nañu ni. nettali nañ ma ni maam bu ñu musaa di waxtaan suñ maam dana maam de gone la waaye daa teggi ci cëri mag ña suñ maam moom suñ tubaa ko fàggaloon moo ko fàggaloon ay yëfam kenn la koo xam ni wax dëgg yàlla ci kër borom saam ab sag la ci kër gi ndax fenn fooy dem ab yéew ñi dafa waxtaan waxtaan bu yàgg te doodoo gi ñu tudd sëñ maam moom amul fii mu ne man am na ñuy sax di ma laaj ndax sëñ maam daa mos a nekk xalifa suñ Mor Diarra may leen déedéet am na ñu ko gëmul woon dee nañ mos naa nekk xalifam te wax dëgg ak njàmbaaram góorgóorloom ak tegoo ci yoon yi dong ko mayan. asalaamaaleykum mbokk yi ñi nga xam ni yéen ñuy seetaan ñuy waxe nag ci kàddu Serigne Abdoul Ahad moom mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Mame Balla moom maam Borom Saam ngeen ñëw fii fekk si ko fi maam ci kër sëñ maam Balla fekk fi xalifaam bii mu jox ñu kàddu gi ñu war a wax ci moom ñun nag suñu kàddu doon loo xamante ni luy gudd la dañ koy gàttal ci tënk rek danañ ci xamle walla sax gën a xamle euh, maanaam kan mooy sëñ maam Mor Diarra sëñ Mor Diarra nag moom mi nga xam ni moom la ñu ko tey <coughs> li nga xamante ni moom la ci mag ñi wax moom dafa doy sëkk ci ñu xam Serigne Mor boo ko bëggee xam mooy kan eh, bi mu fi bi mu fi jógee boo delloo ci mbind yi nga xam ne moom lañ koy bindal kom ku ci mel ni Sëñ Fallu ci Masiyamba da ngay dégg mu naan wafaatu Seyxi Ahmada Diarra amrun xasimun min mulimaati duhóori maanaam nee na génn àdduna gi nga xam moom la Sëñ Mor Diarra génn àdduna daa doon ci xew-xew yi nga xamante ni jamono da koy indi dégg nga ba noppi waaye nag nee na mbir mu màgg la ci mbir yi nga xamante ni maanaam jamono da koy indi boo koy toppee day dem ba ca bëy di da ngay dégg mooy wax naan la <clears throat> lahum waman lahum isaama alaha alayhim sattul amiiri bu ëllëgee bu fekkee ne ab buur ñëw na bëgg a sonal nit ñi di leen song bëgg leen a jaay doole ana kan moo leen di dimbali mu mel ni kon si da doon taxawee foofu maanaam dimbali nit ñi ku ñëw bëgg a jaay kenn doole ca fekk na dimuwu noon mu dimbale la kon doo doon taxaw foofu moo tax bi mu fi jógee nga gis ku mel ni Sëñ Fallou di waxee ci lu mel noonu naan léegi nag ana mooy dimbale nit kon loolu rek buñ ci yemoon da nga xam ni moom kenn la ci maanaam jàmbaar yi nga xamante ni moom lépp loo xam ne lu ñuy wax lu baax euh, euh, ku baax wala lépp lu ñu askanale ku baax maanaam mën nga ko askanale ndax ku ci mel ni maam Thierno ku ne xam na ne du waxee bakkanam ca ca ak mbindam boo ca demee duñ indi lépp ndax euh, day gudd waaye ba mu demee ba ci jeexlukaay bokk na lam ci wax mooy alhamdulillahi fi wafqi samaani bihi wa kaana sudaduhu fil bi wal xajami ñi ngi sant yàlla bim ñu dëppaleeg jamono joo xamante ni ki ci nekk mooy sangub araab yi ak làkkat làkkat nag buñ ko waxee mooy képp ku araab rek kon moom nee na foofu la ko teewoon nee na daal ñu ngi sant yàlla ci bi mu ñu dëppalee koo xamante ni mooy sangu arabe kon loolu rek doy nañ ci ñu xam suñ Mor Jaara moom mooy kan jaamu yàlla giit it buñ ci doon waxtaan danañ ci mën a wax loo xam ne lu bëree bëri la waaye nag xëy na loolu day gudd bu loolu jàllee ki nga xamante ni moom ngeen ñëw fekk si tey muy sëriñ Abdou Lahad mii fi nga xam ne fi ngeen ñëw muy kër sëriñ Maam Balla di kenn ci njabootu maam borom saam mën nañu wax ci moom lu bëri waaye ci ak tënk rek moom mooy kan sëñ Maam Balla buñ ko doon xam ne doomi eh, soxna Atta Khoule waajuram wu jigéen bu dee waajuram wu góor mooy maam borom saam mi ñu wax. ginnaaw bi nga xamante ni gane na àdduna tamit fii ci Mbàkke Xewar 1904 ba nga xamante ni 5 1905 ba nga xamante ni yi war a am ci moom am na ci. Eh, ci ci ci ci doomi soxna bu tollee fii mu war a toll pour jàng Serigne Touba lañ ko joxoon. moo ko yar tërbiye ko sëriñ Tuubaa nag ku ne xam na ne ku mu yar tërbiye la moom la war a nekk ci yow lépp dana ca nekk dara du des ndax moom lépp a mat lépp a mat jëmmi melo yi nga xamante ni tamit dañ ciy tagge am murit ca mooy li nga xam ne moom la ñëpp bëgg a doon moom ca sëriñ bi waxal ko boppam boo demee ci am mbindam ni mu koy waxee naan sifaatu zaariqil muridi bi ixtisaar ila axiri abyaat ne dama koo way ngir bañ ak woru euh, daan ni ñeent la yooye boo koy topp tudd na ci ak sopp sëriñ Maam la nag loolu ko amoon na ci moom yëpp yëpp boo ko doon topp par benn da ngay xam ni yëpp amoon na ci moom waaye dañuy jël benn bi rek mooy bi nga xam sëriñ moom la njëkk tudd mooy ak sopp sëriñ bi daa xam ne ne ak murit bokk na ci li mu sopp ab sëriñam bëgg ko sëriñ Maam Balla nag loolu dafa am ci moom ndax boo delloo ci am mbindam am na xasida gu muy tàgg sëriñ bi waaye fi mu ko njëkk a tàmbalee rek ginnaaw bi mu jullee ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba noppi lim njëkk a wax mooy wali majnuunil xaddiim mooy kii wax mooy doxub dofub seexul xaddiim moom foofu noonu la fi tuddee boppam dofub seexul xaddiim nga xam ni kon moom yëgut boppam ci dara dolli ca ne xubu xadiimin Moustapha Sihaari wa xumdati fi sirri wal ji jihaari soppu sëriñ bi mooy sama màndarga mooy li ñu nga xam ne mooy drapeau bi koy xàmmee doole ci ne mooy ab kenoom kenoom mooy li nga xam ne mooy téye mbir mi ba du daanu dellu dégg nga nee na loolu nag ci lu nëbbu ak ci lu feeñ lépp rek doole ci ne mahabbatul habdil qadimi saadi wa xuddati lil xabri wal mahaadi sopp ki nga xam ne ni ma moo moo mooy sëriñ bi mooy eh, eh, mooy mooy mooy mooy sama yóbbal dégg nga mooy sama xarukaay mooy li may préparé pour war koo waajal ëllëg bu may jëm ci xabru te xam na ne ku nekk xam na ne foofa moom foo mbir la moo xam ne ku fay dem war nga ko waajal moom nag nee loolu la ko waajale dégg nga da ca dem da ca dem ba mujj gi mu naan wa xubbuhu masiyati wa faxri bi irtiqaa'i wa salaahu amri maanaam ak soppam sopp gi nga xam ni moom laa ko sopp mooy sama ngëneel moom mooy li may ndamoo tamit sama yëkkatikum mbir ci loolu la nekk dégg nga loolu duñ ci sore dañ koy tëjee rek si li nga xam ne moom la wax waaw dem na banaan naan euh, euh, maanaam man saaxa tax mu xoo waxu bu ansaahu kulla xalaawatin wa maa yaxwaahu dégg nga dégg nga noonu noonu la ko waxe man saaxa tax ma an ansaahu kulla xalaawatin wa maa waaw képp koo xamante ni euh, mos ma seexul xaddim moom moom maanaam dee dootoo bëggati dara sopp gi dem na ba naan sopp gi mu sopp Seexu Xadim daanaka daa dem ba ab xolam fopp fépp xelam mu ngi koy ruyal foofu nag fela ak sopp mën a yam bokki jullit yi bokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyu bi Cheikh Mouhamadou Mountakha mi kilifa yoonu murit di nuyu it sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay góor mi nga xam ne mu nekk ci bopp njabootu Mamour Diarra di leen ñaanal liñ am yéene yi ko seen maam yi suñu borom jàppandalal leen ko bañ defee ko ni ko bëggee ci barkeb Serigne Touba ngeen ñëw ci bis boo xam ne dañuy fàttaliku Mamor Diarra di ko ci ñaanal Mamor Diarra doon koo xam ne dafa uh, naqaree waxtaane waaye it neex a waxtaane ndax Mamor jaara mooy ki am lu kenn amut defit lu kenn defut ndax bu ma nee mooy ki am lu kenn amut mooy ñëpp jege Serigne Touba lañ bëgg te kenn mënu ko koo gën a jege. ndax moom mooy ki bokk ak moom wayjur wu jigéen moom rek ñoo bokk ñaari wayjur kon ginnaaw ñëpp cër buñ jegee Sëriñ Tuubaa la ñu xëcc kenn gën ko koo jege mu def lu kenn defutit muy sa jiitu Sëriñ Tuubaa jamono mag ko ba noppi wëlbatiku jébbalu ci moom jox ko ay mbiram yaakaar ko àdduna ak àllaaxira kon def na lu kenn defut maanaam am na lu kenn amut def na lu kenn defut li ci des ñi ma doon waxloo niñ ko yaatale yaatu na dégg nañ ko bu baax maanaam dañoo bëgg daal ñu xam ñu xamle ne Maam Mor Jaara mooy magi Sëriñ Tuuba mbokk ak moom wayjur wu góor ak wu jigéen Sëriñ Tuuba doyloo woon ko doon ko déglu ne ko woon yow rek laay déglu te te man Sëriñ Tuuba man la sallallahu déglu te yow yow rek laay déglu kon loolu Maam Mor Jaara rek moo ko am kon bu ngeen ñëwee ci bisam di feeñal ay mbiram euh, daañu leen ñaanal seen lii ngeen di feeñale mbir sëriñ moo Diarra seen lii feeñ ca kaw ci ni bërëb yi feeñ yépp feeñe mu gën a feeñ ca kaw ci barkeb Serigne euh, suñu xol moo sedd ne waxloo waxlu woon nañ waaye nag ñu bëgg a xamal la rek ne euh, Serigne Mor Diarra daal fii la nekk léegi nag wax dafa xew te te bari ah, moo tax daanaka maanaam rafetlu fi lamiñ daal maanaam mëtu la mëtu la def waaye maam moo Jaara daal euh, bi fi bi mu fi bàyyi ko li sëñ Mor doon wax léegi ma sëñ maam sëriñ Touba dafa digaloon mag ñi fi nekkoon ne képp ku mën a way nang ma ko wayal moo waral maam Thierno moom way ko Cheikh Mamadou Fadil moom sëriñ Touba way ko Cheikh Mamadou Lamine Baar moom sëriñ Touba way ko ak mag ñi woon ci yoonu murid jamono yooyu yëpp kenn ku nekk wax li ngay wax ci maam Mor Jaara wax ci wax yu rëy wax yooyu yëpp nag sëriñ Touba moo leen ko santoon a ah, kon Mamo Jaara daal eh, ñun ñi ngi ci ñi ngi koy sagoo te eh, tey tey tey fas yéene fépp lépp loo xam ne fàggu woon na ko moom du fas yéene wuñ mu yàqoo ci ñun te noonu mu ko waxee rek noonu la amee maanaam Serigne Touba eh, maanaam amul fenn fooy dem daal gis fa ku def lu juunu ñu naan kii sëtu Mamo Jaara déedéet moom ah, gisaguma ko te ñu ngi ñaan ñi ñuy déglu ak ñun ñii mu bañ a mu bañ a kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm di ñaanal ñëpp ñëwoon ci màggal gi te indi fi seen i ñaq suñu borom nangul leen ko tañ delluwaat ca uh, kër ya te fekk fa ay xéewal kenn ku nekk say say yitte suñu borom wuutu la ci ci barke Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah